groupe électrogène. waaw ci ñaari semaine plus de cent dix neuf la. ah. c'est compliqué. la séené kaay nañu. Mohamed Boun Abdallah Dionne de wax na loo lu rëy. Mm-hmm. ay révélation la de. Mm. nee na OFNAC. Mm. bi ab français moo ko def. déggoo ma de. xaw ma nee na kan nag moom moo ko moo ko recruté. mu def ko ba pare démissionné. moom nee il y a beaucoup de faux sang et de fausses. sainte ah. dans Dakar Times waaw ay nit ñoo xam ne dañoo jàppee seen bopp rek ne ay nitu yàlla ñu sell ñu sell ñu set fekk duñ ci dara duñ tus nag am na nuñ ko doon liiree ci rajo duma xam li mu wax bu njëkk bi faux xam na xam nga ndaw si ndaw si jiite of nag <laughs> am na nu mu ko doon liiree ci rajo comme boo ko wax il y a beaucoup de <laughs> de mots alors l'exclusif exclusif nag ñëw ak ñun ci waa kër Ablaye Wade ak waa kër Macky mhm. paasal lu xew. championnat wu sàcc. Hmm. classico hmm. ñaar ñii ñoo koy jël. waa kër Macky ak waa kër Ablaye Wade. ñoom ñoo koy jël déggoo ma de. xam nga non dama ne classico xam nga leen comme diggante Barça ak Real. diggante Paris Saint-Germain ak Marseille. dégg nga loolu. ñu hmm. ngi nii nag tey. dafa ñaaw sax. sàcc faux diplôme maguy. usage de faux association de malfaiteurs. alal ju lewul enrichissement ah. illicite. cour bi daal nee ñii nañ leen topp. ñii nag coronavirus du leen laal de waa suuf waaw ñii de moom waaw mooy mooy nekk ca Chine. Mm-hmm. dugg si nañ ci réew na mm-hmm. étudiants yi ñëw am na lañ lañ fa dund daal. ñoom dañoo ah, ah. bi dañ leen bàyyi. ñëw nañ. ñëw non mais ñooñu yaakaar loolu dara. da koy jël interview. waaw fan. ah xanaa buy ñëw fii lay. mais non tant qu'il ne représente pas de menace kay lan la y a pas de la. waaw ak ak télé bi seen TV. <laughs> dañ ñëw suba teel ñu invité leen. xanaa su ngay daal di quarante bu salte bi waaw. ñoo lànk révolution silencieuse. waaw mi ngi nii waaw ñoo lànk ngi nii nag. Ah, xam nga surnaal bi def nga politique gu seize bi de baaxul. Hmm. baaxul ci ci ci politique. li ñu naan la nature a horreur du vide. Eh, eh. tout à fait. politiciens yi comme que instant bi moom dañoo bàyyi la terrain. Hmm. mouvement de jeunesse yi jël ko. waay ñoo fi ne ne. Hmm. jiitu jiitu ñoo fi ne. waa ñoo lànk fi ne de politiciens yi mhm. kaay ñëw ak ñun ci Ndeye Tické Ndiaye muy ministre la. Mhm. nee nañ ma ngay ratisser large nag ma ngay dajale waa Thiès ak. Mhm. ñoom it seen mu ngi nii gis nga woo ay nawleem. baax na waaw mi ngi ngi nii nee na weer bu nekk bëgg nañu dem ci benn commune. ñoom de seeni commune sax neex nañoo. li tax na. waaw le soleil yéen i kaay ñëw ak ñun ci. nee na cleaning day bi gis nga premier jour bi gars yi bokkuñu woon waaye fi nekk dafa mel ni tonton deuxième journée bi la gën a bale de. Euh, regarde c'est bien. Paasan wax na ci. mais est-ce que mais que kii Mermoz bëri nañ mbalit. amul amul fenêtre Mermoz fi mu dëkk amul amul mbalit. mais non non moo dox. Mhm. génn na dox na. la société sénégalaise est en train de devenir folle. waaw fi nekk nii kay sa waay xoolal. Mhm. moom kay moom weesu na fol. Mhm. mu instant bi société sénégalaise dafa tàggoo ak sa bopp. dee ñuy gis nii ñun. temps xale temps xale gis nga bu ñu déggaan ne diw dafa dee mhm. ñu naan football nii ci bayal bi ñu naan dañuy jullee ci suñ jumaa ji foofu suñu ko xale yëpp ay daw dugg ci dugg dugg dugg dugg dugg dugg ci mhm. c'est grave Ahmed c'est grave mhm. Youssou Mbargane Youssou Mbargane waaw Youssou Mbargane la waaw réew mi yëngu na de réew mi ko dañee ñëw ñun ci maître Moussa Diop nee na syndicaliste yi nekk Dakar dem dëkk Mahmoud Saleh moo leen di roox ba ko Mahmoud Saleh day balaay kii si fraude si pic la vie cachée Mahmoud rek Salé. l'observateur ñëw ak ñun ci. dundu góor jigéen yi ci Ndakaaru paasam. kii docteur Deme yi nee na médecin la. fukki at ak juróom-ñeent ngi nii mu nekk ak ñoom. Hmm. téeméer boo jël juróom-ñett fukk di quatre-vingt pour cent yëpp. mu ngi nii ñu bind ay bisexuel lañ. Hmm. dañoom am jabar am doom. Hmm. te teewul tamit ñaga ja. nee na ay kilifa yu njàng ña. waa ji kay nee na teewee na sax moom ay mariage góor jigéen ba tey. bu ko sëlee nga nee nag. mais mais pourcentage bi dafa bëri 80 pour cent la wax 80 pour cent. waaw ci góor jigéen c'est-à-dire 20 pour cent rek ñoo si hétéro. des ah, hommes quoi waaw déet pas des hommes. déedéet des hommes yooyu góor jigéen dëgg. non maanaam góor jigéen pour cent ñooy góor moom ñoom ñooy bisexuel. am ay jabar am ay doom. maanaam bon assumé nañ à peut-être. Euh, cinquante pour cent. mais par contre les vingt pour cent nag ñooñu moom xëj na. yal na yàlla yal na yàlla sàmm Sénégal. amiin amiin yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla sàmm Sénégal lu gis leen temps bi nu mel Ahmed Chérif nga temps bi ci boppam dafa lànk bañ. février mm. mënul fexe ba am sedd. Mm. mu tàng. pënd. mais après c'est bientôt le carrément aussi. yàlla na ñu yàlla jéggal. yàlla na yàlla jéggal yàlla na ñu yàlla jéggal muccal ñu. amiin amiin muccal suñu njaboot suñu xeet macha allah. ça fait peur ça fait mal ça peur ça fait. Voilà, voilà lobbying, voilà tout ce qu'on veut. Voilà le drame que de ce pays. C'est-à-dire que le Sénégal est arrivé à un moment. ouvert à toutes les portes. À, tous les vices vraiment. Euh, euh trafic d'êtres humains bi fële ca ah Kédougou. Mhm. état bi xam ne leen jàpp d'êtres humains. état Nigéria ci ay responsabilités yoo xamante ne kenn xamul lan la safuñu yàpp safuñu jën. gisoo permis bi ak ñoomin seen. léegi dootuñu bindati sax gars yi euh, euh, sexe. ay ñoom daal lépp lu ñu def rek. il faut mu am benn. tey na waar tey na waar obscurité quoi. tey lu lëndëm yoo xam ni. du saf yàpp du saf. boo nekkee maire mu changé. mais genre dafa daan am ci dëkk yoo xamante ni c'est à préciser yoo xamante ni dañuy accepter. Mhm. homosexuels yi ci ci ñoo euh, boobu réew. di accepté wu wala transsexuels yi maanaam. góor yi des personnes ah, ah, normalement amul loi bu ko accepté wala. am na fi loi bu ko Sénégal njaay gi. waaw. <laughs> yow xanaa yow déggoo sa njiitum réew bi mu demee ci tubaab yi. li ñuy tere kay mooy. génn ci mbedd mi di def naka sudul noonu. Hmm. ah oui génn ci mbedd mi def lu ko noonu loolu même bu góor jigéen sax dañ koy tere nekk ci mbedd mi def def def lu toog rek yow si sa dund privé si sa ruq nii. kan moo la fay fekk loolu kay waaj a leeraloon na ko ba mu leer. Sénégal daal benn affaire am na. kenn du fi def la promotion. de l'homosexualité mm-hmm. loolu moom loolu moom loolu moom bu yóbboo. wala xanaa euh, lëg daaw da koy tere. Mm-hmm. gannaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi lëg daaw da koy bañ ko ka fi def. kocc sax da koy tere lëg lay kocc. kocc da koy tere balaa non waxuma sax wax yi kocc ku ko fi def. Mm-hmm. nga yëg nga bañ a yëg moom lëg lëg am na fu mu lay kocc te mu ngi lay xaar. da lay siiwal yàlla ñu yàlla muccal yàlla ñu yàlla muccal yàlla ñu yàlla muccal viis la seytaan la nattu la mhm. yàlla na yàlla génn leen si te muccal ñu amin amin amin adduna bi de moo tollu fii mhm. moom daal moom daal bu yàggoon mhm. laata sama maam doon ñëw yii moom borom bi daaw ci sax baddine def yii mu xotti suuf waaye comme que nag mbër ma moom ba mu ñëwee ak yërmande kii yonent boo fi gis day am ab dossier bu mu war a défendre ca kanamu kiré yi taxawaay bis penc mm-hmm. waaw waaw Ibrahima dafa nax nax firaaw na rek ndax bañ mu rey jabar ji rek mm-hmm. Mm-hmm. maanaam kon mën nañu wax ne kon naxaate mooy wax loo xam ne newul dëgg dossier boobu lay defaat Moussa bi mu xaree géej gi nit ñi dee ku ci nekk am nga benn dossier waaye gis nga punkal mi moom waa ji dane ko bàyyil ma yemale fi mbir mi rek comme na ma doon def na woon foofu ñii il faut ma yar leen mu ñu ko tàggatal ma leen rek wallaay ndeysaan <laughs> ëlbatil ma seen xel yow mën nga ko wallaay ba ñu nekk ci lu jub loolu kay moo gën nga leen di rey. boo leen rey da ngay commencé waat à zéro. mooy ñaan bi mm-hmm. mooy ñaan bi de. mais tàggatal ma ñii nga xam ne dañoo laluwul ci siraatal mustaxim ñu ne ci. Mm-hmm. bu ko defee man sax sama mbooloo mi day gën a bari. Mouhamed dafa baax. sallallahu alayhi wa ñaar fukk laa yor. Mm-hmm. ñeent fukk ak may xeex. tàggatal ma leen. olbati seen xel yéeg seen xol yi. ba ñu lalu ci siraatal mustaxim. wallaay wallaay lii la maamu nanaa wax. moom daawul olbati de waaye ay bu doon jamono yii de <laughs> yàlla xam lu tax ñaar. joxu ko kenn. mu gardeel ko boppam. li muy bëgg Muhammad yëpp jox ko. sallallahu alayhi wa sallam. ak ki ne taw nee na anniversaire am tey la. tey la fan la yow ak Asma. tey la anniversaire am nee na daf leen bëgg yee ñaar. ñoo ko raw. te war nañ fa dem de. waaw ñu ko souhaité joyeux anniversaire. madame Ndour Fatou Kiné Taw. moom ah. ak ak ak soxna Astou Thierno Mbacké. bu Serigne Mourtala. ndeysaan moom tamit il faut ñu souhaité ko joyeux anniversaire. en tout cas joyeux anniversaire à euh, ñëpp képp ku juddu bés bi rek. Euh, jàppal ni waaw ñoo ngi lay. souhaité doguma yàlla bu yàlla dog bu ñuy wax Cheikh kan suñu benn papa bu ñuy wax Cheikh kan mhm. moom ak Baye Mor Gueye fële ci usine benn tali. ñu ngi la doon seetaan ñu ngi lay nuyu ma di leen fay ñun ñëpp booloo ah nuyoo bi ñëpp dénkaane ma ko rek ma jottali ko yaas du noonu la. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. <laughs> voilà donc euh, di leen jaajëf bëri na ay. suñ tubaab yi. xam nga boo toogee ak sa sang xamoo loo koy def da nga koy hmm? nangul. suñu tubaab yi ormal. da nga koy ormal nangul ko. dama koy nangul bëri ay tubaab de. pourtant sama wolof yi wolof yi set wecc. waaw waaw waaw nañ leer nañ. leer nañ la la ça vient ça vient ah mais macha allah. tuddoo bi yow bi bëgg bañ a dégg wolof. on adore on adore Asma Khadija. mi ngi noonu noonu la fa tuddee. <laughs> ma di leen jaajëfal ce fut un plaisir. de ah, partager le plateau aujourd'hui gis nga. temps bi bu ñu joxoon ah, cinq heures de temps sax duñu. parce que man moom xam nga rek rek dama fiy teel a ñëw moo tax quatre heures laay ñëw dee leen teel dix heures ma paree tës bi ngeen ñëw ne ma liiral te dem sinon dootoo leen ma gis de wax naa ah. Ah. Mm-hmm. Ah, pare nit ñi sax dañu lay yàkkamte léegi dorénavant dix heures pile fu mu jotee bu dul nit ñi dama jëm mag waaw waxoon naa la keroog ne la sama oom yëg yooyu <laughs> <laughs> ma commencé jëm mag de mënu ma fay toog jëmale ginnaaw suba <laughs> jërëjëf le maire